di ñaan yàlla subhaanahu wa boole ñu jéggal tey nag ma bugg a waxtaan lu tuuti rekk si yi nit doy waar gi nga xamee ne ñenn ci nit ñi doy nañ ko waar amee ko fit ba di feeñal loo xam ne nekkut ci ñoom te sax yëngalu leen nit dafa lëndëm nit dafa lëndëm fan yi dama toog di seetaan liggéey bu rafet bi nga xam ne TRRC bi ñu ngi koy def di gërëm lead council ak ñi nga xam ne ñoom la nekkal commissionnaires si yépp seen liggéey bu rafet di leen jaajëfal lii nag ñun Gambien si war nañ see jànge waaw xam ne nit a ngi lënkaloog yow di jëflanteeg yow waaye fekk ku doy waar la te jikko yooyu nag suñ ko wécciwut ci suñ biir rek affaire bi dafay gën a mit am na yenn yoo xam ne nag kenn du ko laal te kenn du ko wax waaw ñun léegi-léeg suñ aare dana lay yóbbu foo xam ne luñ war a wax la pour mu jugee fi waaye kenn du ko ñemee wax parce que boo waxee ñu ne dafa ñàkk teggin wala dafa ñàkk yar may wax nag ne ki ñàkk teggin mooy ki tegg li yàlla teg waaye lu duxu dëgg moom bu ko ñëpp doon def itam du mën a doon dëgg waaw dëgg tam bu ko ñëpp bàyyi woon du tere rek dëgg gam doon rek lay doon tey tam nag ku wakkeerlu ci yàlla yàlla mooy doon sa sukkandikookaay foofu lañ wéeru nag ba tax lépp loo xam ne lu ñuy wax la dañ koy wax rek te yàlla tax waaw te dëgg nag waaw du la taxa a dee te sa fekk waxtu dee jotut te du la xañit sa wërsëg kon dama yaakaar ne ci noonu rek lañuy mun a jàppalante waaw pour waxante dëgg dimbalante te yàlla rekk tax lu ñuy def rek ñu def ko te yàlla tax waaw génne jayaate bi ci suñ biir waaw danaa koy wax ci waxtu wu nek waaw léegi-léeg ñu dila jay <coughs> te woor na la ne yow <coughs> ci li nga nek du deug ngeen bal waaye danañ la jay pour rek amana nga waxal len lu bax wala nga defal len lu bax ñun nak ñaanu yalla doxé noonu waaw jàngale gi nga xamé ne li jangal na dafa yaatu suñ ci doon wax tay ba suba tamit du jeex te lepp si ñun la rek si ñak yene xante jamm ji si ñak dimbalante ta yalla tax waaw nga gis ni nit degeere fit ñu tegal la lu melni alquran wala bible nga tek ci sa loxo ba pare di wax ñi janoog yow ñi ci biti xamne yow li ngay wax ni du deug waye pour lan nga sawé sa bakkan waaw ba ngay toroxal di len lor lo won li te bis bi mom fokk rek mu ñëw waaw suñ la ko defut fi tamit fële fokk rek yàlla arté la te yàlla wax nañu ci alcorane ni lépp lo def lu ndaw lu toll ni sarra lu toll ni pep sankal sànqal danañ la ko fay mo xam lu bax la wala lu bon la mu ñëw wax ñu ci alcorane ni لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا anfusikum به الله yasibkum لمن يرضى ويعذب من يشاء يلا موي بروم اسمان تا موي بروم سوف lépp loo xam ne lu ngeen def la lu ngeen nëbb wala ngeen feeñal leen ko ngeen feeñal ko dina leen ko xisaab moom mooy jéggal ku ko soob te mooy mbugali tamit ku ko soob kon doomi aadama yàlla yi mënoo nekk ci seen biir war dund ni nga xamee ne noonu la yàlla santaan ne ñu dundee ko nga am benn kattan boo xam ne kàttan bi yëgoo ci yàlla tax nga di leen di toroxal yaakaar ne di nga mucc yaa ngi nax sa bopp daw daw xam foo jëm daw dam xaw xam jëm waaw amul kenn ku fiy def jëf ju ñaaw nga yaakaar ni dinga ci mucc waaw mën ngaa mucc ci ñàkk a julli ñàkk oor ñàkk joxe asaka ñàkk dem màkka waaye suñ diggante ñu ni neen mënoo cee mucc mu ka rek kooku rek la mën a jégal waaw te fen nag mom moy foundation ni nafiq yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne mandarga yi di mandargay nafiq ñett la su waxtane fen boko ko óoloo mu uruj bu la joxe appointment fil ko mano wax ci digante nit ñi tax danaka hadith bobu du ñew lima koy wax bari na torop ta mo mo mo mo mo jikko yoy nonu rek nga xamne ñoñu tok fofu nonu ñu ko ñu ñu ñu koy feñal mu leer nañ ci beuti nit ñi te ñooñu lañ gis seen bos waaye ñi ñuy àndal di naan ak ñoom ataaya di añ ak noom ñoom di indu di defante lu ne ci suñ biir waaw fekk ñu ngi ñuy def lu ne wala ñu ngi lay def lu ne waaw jikko yooyu bu génnut ci suñ biir pour ñu dem si kanam du yomb dafay gën a métti rek waaw waaw te ñun ñëpp ëpp doole gi ay jullit lañ yàlla nag daf ñu wax ne innamal mu'minuuna ixwatun na bayna xawaykum jullit ñëpp ay mbokk lañ yéwénal leen seen diggante waaw yéwénal leen na ngeen yéwénal rafetal te yàlla rek tax waaye jayaate di oraate di waxalaate lu amut kii joxe rek lañuy yaakaar ne mooy ki baax waaw danaa koy wax yéwén dafa gën a siiw baax kii joxe ku yéwén la daf ko am di ko def am ku ko amul nag waaw waaye mbaax mooy def li nga xam ne moom la yàlla santaane waaye feeg joxewoo rek yow baaxoo te amoon na yow ki lay jox sax raykati nit la yéen teg ngeen ci seen bët yi waaw waxoon naa ko bu yàggut di nga ci gis nit doole gam am kàttan gam am yëgu ci yàlla di toroxal beneen nit waaw am na ci ñeen yoo xam ne demoon nañ ba ndaw ñooñu leen waxal mbaax gu nekk waaye tey bi liy feeñee ñëpp noppi nañ kon nag buñ di jiitu paaka ci mbatam nañ leen ñuy bàyyi wante xel ku nekk cër bam yelloo ñu jox ko ko di waxalante lu baax xam ne fokk bis ñëw bis dana ñëw moo xam fii la moo xam si kanami suñ borom wallahi lépp dana leer nañ moo xam fii la gi nag gis ngeen ko lu mel noonu mu leer nañ nga toog àdduna bi yépp di la déglu ngay wax ak mbon go def ñu dila feñalal ak mbon go def yalla nak mom yawmal khiyam daf ñu wax de waaw so demee ci yasin di nga fekk bi yalla mu ñu fay wax ne al yawma nahtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tasru ajluhum bima kanu yaksibun mu ne bisab tay bi dañuy kaste seen gemmi waaw su ko sen sen sen sen sen sen loxoy ñoy wax lañ defoon seen tànk yi seede fa nga xamee ne demoon nañ fa lépp lu ngeen fàggu woon dana dana dana dana leer bi sab tey bii seen gémmiñ yi nit dafa mën a lay xoola gars yi ni ñuy layee rek la ñuy def mu leer nañ nit ñi waaye pour sawe seen bopp rek commencé nañ jël seen làmmiñ di taltali pour sawe seen bopp yow man xeyam nag ne yàlla ne sa làmmiñ sa gémmiñ googu lay kaste cër ya doon def ñoom ñooy wax kon nañu bàyyi xel bis bii bàyyi xel dee gën a fonkante dimbalante te yàlla tax lu ñuy def nañ ko def te yàlla tax xam ne dara nekku fi lu dul yàlla sax ci dëgg te xam ne yàlla moom mooy dëgg dëgg du la tax a dee te fekk sa dee jotut te du la xañ sa wërsëg lu dul yàlla neen la yal nañu yàlla jàppale taxawuñu suturañu def ñu ñuy ay dëgg-dëgg jullit bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lu yàqu ci kàddu yi ngeen xam ne suma xam-xam bu matadi la su rafetee ngeen gërëmee ko yàlla ak yonent bi waaxiru daawaana anil hamdulillahi rabbil alamin wasalaam